gis ngeen Niger la déjà ba léegi ñu ngi ci problème ndax cdao day intervenir yi ak guerre ak di pousser pour ñoom régler ko te liñ ko régler nañ ne fa ay militaire pour nangu pouvoir mais la stratégie bi France nous avons koy may temps pour mu France à ngi leen di génne di rawale bala ñuy commencé taal bala ñuy tàmbali nit France dañ lay génne ba pare ba pare nee na seeni bien yi am foofu dañ koy protéger duñ ci yem intérêt te intérêt yooyu mooy ressource Niger yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom mu ne intérêt ci Niger intérêt intérêt dañ défendre encore léegi nag ñoom bu ñu jëlee li ñu am yëpp ba pare bàyyi senegal ak Nigéria donte Nigéria sax bloqué nañ yeneen réew yi nangu te nekk ci CEDEAO ñoom ñu dem intervenir ñu rayante seen biir après tubaab yi génn ñu ñun fii lañ tollu ci Afrique ñu pour lan intervention militaire pour lan te wallaay bu ci tubaab yi duggul africains yi duñ mës a intervenir foofu ak i militaire parce que amalu leen njëriñ. waaye France moo yëg ne Niger waru koo rëcc ndax lim commencé perdre ci Afrique dafa bare muy pousser CEDEAO pour mu jël ay mesures yu mel noonu du leneen cest à àddina bi ñoom fa ñu ko yemale ak fi nit ñi nekk dépassé nañu foofu nit ñi nekkatuñu 1980 nekkatuñu 1960 askan waa ngi feneen coup d'état kenn mësul woon gis coup d'état ci àddina nit ñi di jubilé daawul am ñi daan coup d'état buñ daan. coup d'état ba pare ci saa si état d'urgence la ñuy def pour bu kenn génn parce que danañ yëg ni liñ def neexul askan wi day mel ni dëj léegi dañuy coup d'état askan waay kontaan tubaab yi kay ñooy mer ak CEDEAO mais askan wu duñu kaas doo dégguñu mer kon nga yëg ne ka fa nekkoon la mu leen doon teg moo jéggi dayo te intervention militaire bu fa amee ah mën na bañ a jig réew yu bare ci Afrique ndax Mali jël na position nee na moom Niger lay jàppale te ku attaqué Niger moom mel ni na moom nga attaqué te dina la attaqué moom te xam nga am militaire moo fay wax léegi du civil la fay wax militaire moo fay wax léegi front yooyu yëpp war a ubbeeku ci Afrique jëm fan ndax dañuy dem ba Afrique yëpp nekk ay toolu deret ay xeex yu dul jeex su ko defee tubaab yu ñëw di àtte si samp seeni usine seeni machine di manque ressource bi di yóbbu di dem ba kañ ku sa bakkan rëyul ci yow sa alal dootul rëy ci yow te ñoom suñuy bakkan rëyul ci ñoom waaye alal ji nu fi gis daañu ko manque bu jeexoon tey ñu ba Afrique ne ci leneen su ko defee ñoom nag bu fekkee yooyu du ñu ko liir xam ne askan wii ñu mujjee jiite nekkatuñu askan wa nga xam ne dañ daan xool ku ñëw rek ñu tàccule ne la toogal boo lekkee ba doyal nga dem sa yoon nekkatul askan woowu askan wii léegi moo lay fal gën laa xam li tax mu fal la mën na am sax moo la ëpp njàng mën na am sax moo la gën a jub mais yaakaar na ne rek xëy na boo toogee xelam dal kon nag man jàpp naa ne fokk ñu liggéeyaat ci xol yi ba képp kuy gouverner nga gëm ne yàgg yàllaay jëflante du yàgg sa askan parce que boo gisee politiciens yu bare tuur deret ak rey mu yomb leen pour ñu sax ci pouvoir parce que dañu gëmul alaaxira dañ leen di àttewaat li ñuy def ñoom dañ def ni fii ci àddina yow lijjantil affaire bi ba mu leer rek yow mal xiyam leneen la loolu tant reglewul réglé du ñu dañ di fal nit muy faagaagal askanam ak di lekk seeni alal parce que gëmul na yow mal day taxaw ci kanamu yàlla ñu àttewaat waaye loolu ku mu des ci sa dënn ngay xalaat benn dërëmu askan boo lekk yowmal xiyaam dinga taxaw fay ko ñépp soo ko mënul fay nga delloo sa yiw yépp benn deretu doomu aadama boo fa tuur mbaa bakkan boo fa faat daa ko régler mbaa nga wuutu ko safara ëllëg loolu bu desoon seeni bopp du ñu gouverner nii ñuy gouverner bis bu niveau yi yeggee foofu ci ñii di ñu jiite kenn dootul dégg ku sàcc kenn dootul dégg ku rey nit kenn dootul dégg ku faagaagal alalu askan ci neen te du mujj fenn